mbokki Sénégal mbokki Afrique lu bees tàq judd na cim réew mi ñeel wàllub tabax mu di lan TRTP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 www.touba-rtp.com ak ci seen page Facebook entreprise Touba réalisation travaux publics moom rekk la jël décret wàcce ko xam nga dañu génn ci élection yi rek te ay millions yi millions la dem defee campagne à Louga waaye bi mu génnee ci élection yi lañ ko fa jëlee xam nga mosoo gis ku jël xaalis bu bari dépensé ko pour campagne ñoom ñu gañe gox gi mu dëkk ñu jóge ci élection ñu dàq ko ba boobu boobu ba léegi mu nga këram toog Macky Sall moo gën a xam li Mamour jàlloo def yor na rapport te du premier rapport nag ndax njëlbeen loolu am na rapport IGE sur Twitter Bertin bi nekk fële Sangalkam boo xam ne moom Mamour Diallo boobu rapport boobu épinglé te Mamour Macky Sall da koo xam yor rapport bi teg ci tànkam fal ko fi mu koy fal ne ko jëlal sa xaalis dem politigal ma loolu moo fi am ñoom nag jàpp nañ ni mën nañu yor seen làmmiñ gu rëy ngeen jéggal ma ci kàddu gi di mbël mbël mbël ba ëpp nit ñi la euh, euh, gën a fës nit ñi dañuy def seen lu toll ni àdduna ba pare yor seen làmmiñ di mbër mbër mbër foog ni mun nañu intimider nit ñi man mii de Ousmane Sonko ak ñi ma àndal ñii tuuti nañu torop torop ci intimider mi ñaari objectif yi ñu doon ut mooy suul dossier bi beneen bi mooy fexe nag ba tilimal deru Ousmane Sonko parce que Sénégal yëpp ne nañu Ousmane Sonko ku set la ku jub la ku ñeme na li muy def ñoom nag koo tudd ñu ne na càmm bu leen ñu tudd ñooñu donc seen objectif yëpp mooy fexe ba andi ji jaaxa ci xelu sénégalais yi ne waa ji affaire am dafa lëndëm moo tax ñuy tudd ay cabinet Mercalès ak ay cabinet dossier bi du loolu man musuma cee laal fukki dërëm. te am naa sañ-sañ en tant que expert fiscal sénégalais bu fëgg sama buntu bureau ne ma damaa am dossier défendre ma ma défendre ko loolu amul benn infraction à la loi je suis un expert fiscal agré te des dossiers et des dossiers donc ñoom li ma bëgg a wax yi mooy assemblée nationale commission d'enquête bi c'est des complices dans un blanchiment de détournement de deniers publics boo xam ne 94 milliards la te 46 milliards yi génn na ba noppi te su ma waxuloon nag yeneen 46 milliards yi génn na bu yàgg léeg-léeg dama naan sénégal yi dañ ñoo waroon di décorer ñun ndax nag bëri na loo xam ne suñu wax ju bëri jii moo moo tax gars yi ñemeetuñu def de suñu wax ji li mu arrêté ci ci ci li mu limité ci dégâts yi kenn xamul lu mu toll mu des nag lan la lan mooy suite bi. dama ne xam nga commission d'enquête parlementaire nee naa du tribunal suñu paree rapport bi dañu naan rapport bi est-ce que dañ koy déclassifier wala déet et cetera mais mënuñu dara au pire des cas mun nañ transmettre procureur procureur bi mu defee conférence de presse am procureur Macky Sall nga xam ne njaxlaf na trop ci waa opposition bi waaye mus leen ko gis mu poursuivre quelqu'un du pouvoir malgré les rapports de l'IGE de la Cour des comptes de l'OFNAC musu leen ko gis mu yëkkati benn dossier keroog damaa ruus bi ma toogee dégg ko mu naan waaw comme assemblée saisir na man damay xaar ba assemblée pare yow ñu saisir la sept mois avant l'assemblée nationale sept mois nga téye dossier bi toog ci xam nga ni dëkk bi doxee gars yi dañuy toog fu ñuy toog di distribuer ay terrain di joxe ku nekk ñu fexe ba tëj sa gémmiñ ñépp la ñuy jox nag di sédd di sedd bu ko defee ñoom ñëpp ñu noppi ba tax léegi moom moo ci des mais man nee naa dootuma ko saisir ndax saisir naa ko keroog photo jox naa leen fii sama dernière conférence de presse lettre bi ma ko bind au mois de mai 2017 ba ñu ngi 2019 kooku dootuma ko woo dootuma wax ak moom waaye ñun décider nañu saisir directement le juge en vertu des articles 2 et 42 di code de procédure pénale parce que yoon may nañu ko bu ñu foogee ni dossier bi nañu fexe ba jaare ko noonu mu naxasaay dañuy nax seen bopp consulté nañ suñuy avocat te ci semaine bi bu soobee yàlla nañu saisir directement le juge te loolu gàcce la ci procureur ndax Sénégal dem nañ ba kenn wóolutul procureur barki démb am na benn groupe euh, euh, cadre euh, le waaw le CRD gis ngeen ni ci affaire petro bi dañoo bàyyi fi procureur mel ni yàq ñàkk yàq bu forox la ñuy wax dem saisir directement le juge kenn wóolatu ko ndax dossier boo fi déposé ñu ne ku ànd ak Macky Sall la xamal ni du mujj fen kooku mooy procureur ba tax ñun dinañ saisir directement le le juge en vertu des articles 2 et 42 du code de procédure pénale pour que ñu ubbi instruction direct constituée au partie civile dans ce dossier ndax dossier bu leer naññ la dossier bu càcc la kenn mënul fexe ba euh, brouiller les pistes euh, wala tamit moom mi nga xam ne tudd nañ ko ci wala ñoom ñi nga xam ne tudd lañ leen ci waaye waaye nañu takk seen fi dem déposer plainte parce que li assemblée nationale bëgg a def parce que la presse a fuité des choses ne ison ont blanchi Mamour Diallo bu dee loolu la ñu def lii logique man de suñ ma taqalee suñ ma tuumalee dara ñu ñëw blanchir ma damay acquis damay dem déposer plainte pour diffamation xam ngeen bi cooli ne këcc di gan Mamour Diallo dafa ne day porter plainte comme Aliou Sall ni mu ne woon rek day day déposer plainte waaye gisu leen fi benn plainte ndax ku sàcc ba ñu ne wub sàccee ngay daw ba pare naan maa ngi wëlbatiku dem déposer plainte xam nga loolu waxu kacaw kacaw la mu des nag léegi lii lépp nag warul suul l'essentiel l'essentiel mooy dossier yi ñu war a wax lañu bëgg suul fi mu toll nii mooy nag wax dëgg yàlla suñu pétrole bi nga xam ne Macky Sall ak Aliou sal ak Aly Ngouille njaay ñëw ci gën fës jaay nañ ko joxe nañ ko ci anam yoo xam ne du intere senegal loolu mooy coow li boobu ba léegi ñi ngi essayer def de la diversion façon bu ne jaar nañ ko Coupe d'Afrique bi romb na fi ñu dem ba aar nañu bokk am jafe-jafe sax pour mobiliser ndax Coupe d'Afrique bi créé woon na benn engouement ci Sénégalais yi ñu jóge ci loolu ñu song ay nit yoo xam ne defuñu dara xam nga Aliou Sall jiiñ nañ ko ay milliards yi milliards moom Macky sal ñu jiiñ ko ay milliards yi milliards ndax moo signé moom Aliou Nguy Ndiaye ñu giiñ ko milliards milliards ay reportages internationaux am ci man bind naa ci téere boo xam ne 277 pages dem ba accuser ko de haute trahison ñooñu la ñu war a poursuivre nga dem jàpp Guy Marius Sagna nga xam ne deful dara tous defu ko nga jaay ko doole dem yóbbu ko rëbës parce que rek bokk na ci ñi gën a fës ci ñuy animer tey la contestation au Sénégal nga dem jàpp aadama Gaye ne dafa wax lu tegginul jëmale ko ci président la république ñun de du ñu encouragé benn wax bu ñàkk teggin waaye dégguñu fi ay proche u Macky Sall saaga ay communauté entière dégguñu fi proche u Macky Sall saaga toute la communauté olof te tey mi ngi gundaandaat di dem yoonam dégguñu fi proche u Macky Sall di woote wu député saaga waa Casamance yépp parce que rek nit ñi mobiliser nañ pour accueillir Ousmane Sonko xanaa saaga une communauté tout entière moo gën a garaaw foofu saaga un président la république même su dee c'est une institution parce que loolu li mu mun a yàq ci dëkk ak li mu mun a yee ci fitna moo ëpp foofu te ñoon ñi ngi fii di doxantu fii daal soo bokkul ak Macky Sall rek yow xamal ni à tout moment mun nañ la jël faxas la yóbbu la mais yooyu yëpp gannaaw bu ñu apporter nos soutiens à ces gens ñoo ngi wax ni tentative de diversion la moo tax man je lance un appel au peuple sénégalais rawatina nag ndaw ñi ngalla waay na ngeen xam ni seen destin ak seen avenir seen loxo la nekk mbir mi du xeexu juróomi nit wala fukki nit bàyyi leen suñu wootee ngeen toog seen kër yi combat pétrole bi bu ñu ko gañee gañe nañu combat pour le développement du Sénégal donc gañe nañu le combat pour l'emploi des jeunes gagné le combat le combat pour la santé pour l'éducation gagné la combat pour l'agriculture ak leneen ak leneen ak yeneen peuples yi bu ñu gën a gore algériens yi boo seetee jour bi ñu gagné demi-finale bi le lendemain il y a eu 1 million 300 mille algériens dans les rues pour réclamer le départ du régime j'ai été particulièrement choqué et séduit même bi ma gisee ci seen banderole yi ñu bind ci vous ne nous divertirez pas par le football barki dem bi c'était 2 millions dans les rues de Alger pourtant xeex nañu ba Bouteflika toog mais nañ loolu doyul système bi la bëgg a raser est-ce que peuple yooyu ñoo ñu war a gën a bëgg seen bopp ku nekk toog sa kër naan jaar na ni forum bu ñu naan la félicitation ñun soxlawu ñooy félicitation bu yàggee nag ñëpp dinañ ci raxas seen loxo seetaan leen ak woyu yi régime woyu lañ leen di seetaan ngeen xool fu ngeen jëm ak moom xeex bi Sonko moomu ko Guy Marius Sagna moomu ko waaye moomu ñu ko Cheikh Tidiane Doy moomu ko kenn ak keneen moomu ko Cheikh xeexu sénégalais yi la buñ ko gañewoon it du ma ci ëppale kenn kon nañu senegal dafa neex a divertir organiser benn combat de lutte rek nit ñi fàtte nañu lan mooyoon farata ñu ne Coupe d'Afrique nit ñi fàtte nañu lan mooy farata soo waxee ñu ne il est arrogant wax ji neexul mais man lu ma war dama koy wax de parce que noonu la ma yàlla bindee nag respecté naa ñëpp. mais suñu buggee defar réew mi il faut ñuy waxante dëgg yii yëpp c'est de la diversion ba tax ngoon manifestation bi ñu woote na sénégalais yi génn massivement le jour où un million de sénégalais sortiront ñu dem ci place de l'Obélisque Macky Sall dellu gannaaw Macky Sall xam ni moomul nit ñi